ustaas bi dafay laajte mu xam ne dañ ko suul waaw jëpp jàkka joo xam ne dañ faa suul baam dañ faa suul xabru dañ faa nit mooy xabru sax jëpp jàkka joo xam ne dañ faa suul nit te amul xaa-in mooy amul benn miir boo xam dox na diggante jullikat bi ak nga xam ne moo di xabru bi laa yajuuzu salaatu fii kenn du fa julli yonent bi salaa salaam moo ko wax nee na bu kenn julli ci jàkka joo xam ne dafa am xabru xabru ak jàkk bokkuñu fi ñu jëm dañuy wax ne ñaari noon la bu bii dëkkee bële du dëkk bu bii dëkkee bee du dëkk léegi ñu ne waaw jàkkaay yonent bi xabroo nga fa xoolu lu doy waar lu yonent bi salaa salaam ndax moo fa suul boppam déedéet te ku dul yonent bi say jëf con man engagé wul kenn loolu rek benn xaaxida jëf ju jëf yonent bi salaa salaam engagé wul kenn loolu benn la bi mooy ci jamonoy Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu an mu nekk gouverneur Madina ci la ko fa buur ba bëggoon def Abdul Malik Abdul Aziz euh, Omar ibn Abdul Aziz dafa boo woo borom xam-xam yépp laaj leen ni leen buur bi dafa bëgg a yokk jàkka yonent bi ba dugal néeg yaa Aïcha ci biir jàkka ji borom xam-xam yi bañ mu jëfandikoo doole def ko waaye it ba mu koy def dafa yokk ñetti barab yi ku dem mag ku dem Madina ku nekk dina gis ni maanaam ñetti barab lañ ko lañ ko yokki loolu Ibnu Qayyim di wax ci noonu فاستجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران لا يلد صلى الله عليه وسلم موقع نانون استبد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يلا مرنا نجي قبل نجي لسين جاكي دي قريف أي قبل لولو يلد موتخ مني فاستجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران نون لا نون لا ميرما دمي كون جاكا جون سول قبرو دي سفا جولي لدول بفكين امنا مير بدوخ ديغنت جولي كاتبي اك قبرو بوبي dëgg bu baax kii day laajte mu ne benn waaye buy dund sunna da doon fréquenté benn jàngale bu bëri ne benn bés bu seetlu ne imaam bi day takk ay téere di wax imaam bi na ko bokkaale kat bu magam loolu pour fa coow bu mag bañ fa jàppante léegi ne yan conseil ngay jox waa ji ak situation bi xam ne nga nga xam ne fréquentation moom ci jàkk jàkk moom dafa am xasd maanaam dafa da doon fréquenté jàkk xëy na mooy da doon julli si ci jàkk ji la ci bëgg a wax dafa am ay xawaarit yoo xam ne kii julli maanaam sixatu salaat wa qabulu salaati jihataani mun fakkataani julli gu wér ak julli guñ nangu ñaari mbir yu bokkul fu ñu jëm la dafa am lu ñu tudd al ahkaamu al wadaia ay règle yoo xam ne sharia daf koo tër saa yi su ca nit jaaree julli ga wér na moo xam nangu nañ ko nag loolu moom leneen la loolu benn la kon képp ku julli julli ga mel loolu dañuy wax ne julli ga wér na donte sax mën ngaa dogu ci ni julli ga nanguwuñ ko ndax lan yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp ku dikk am njabar boo jullee ñeen fukki fan yàlla da ko nangu pourtant ñeen fukki fan yooyu yëpp da ngay julli doo ko fay mais yonte bi neen kenn du ko nangu mais saxat walam tuqbal kon foo ko ñu xàmmee bayna qabuli salaati wa sixatiha loolu benn la ñaare mooy al imaamul mastuur laa anoon an xaalihi imaam joo fekk muy julli jullil rek góor yàlla te dem waaye di gëstu loolu kenn santu la ko parce que gàllaaj fa muy nekk sori na sori goo xam ne ñaare ko ko gis xaw nga koo gëstu parce que ñaare ci ci ndigg lay nekk te yaakaar naa ne wax dëgg yàlla kuy takk ay ndombaam jël ab garab boobam tekki sol leneen nga fexe ba gis ko kéemaan la ala kulli xaal noo def ba gis ko gëstu googu moom islam du la koo diglul soo ñëwoon fekk ab imaam di julli nga top ci gënaawum julli ba pare ñu lek ki doon julli amul won sax njàpp bu muy julli sa julli werna yow parce que mom def na ci lo xamné ay règle mo teunk wër julleem googu kon lolu ñaarale moy asal al imamul mastur la yusalu xaalihi wala yunqab lu nako na istihara mom ko xamni mom dañ ko xam dañu xamni mom def katu njaaxum la am kat la wala ko xamni mom day dugg ci juróom benn yooyu alqadoxu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa muarrifin wa muxadirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al i'anata fi izalati munkari ko xani mom mashhurun bi manam bi sihr koku mom dang koy baye ak julem te japp sa njabur jurul na xulo ndax jakka ji defé su ko pour pour xulo ak xex bi ci dess te moy bi ci muju moy manam ki joom rawati na di kilifa dess am nis ko wara waxe ki nga xamni mom fi mu nek japp na ni mo fay kilifa mo fa raw parce que bari na ñuy sisu te fekk nañ leen jubbante la waye bo ñëwoon gis ko moo xam day takk ay gàllaaj wala day jëfandikoo njibar wala julli ga daa baaxul wala njàng ma daa baaxul nga bàyyi ba ngoon wala nga bàyyi ba waxtu woo xam ni waxtu wu dal la nga am loo yóbbu mais bu dee keesu suukar parce que du li nga yóbbu mu am solo mais li muy symboliser mu am solo ñu ne ko góor gi tey dañ loo seet dañ laa seet si woon wax dëgg nu ngi sant bu baax a baax ci fi nga nu teew fi nga nu fi nga nu fi nga nu féetali ndax xam nañ coono yi ngay dajak fi ngay jóge mag mu toll yow wax dëgg yàlla loolu nu ngi ci nu la ci sant bu baax a baax a baax xam naa nag nun goroy tey moom sunum njàng xam naa ne daa wuteeg sinum njàng waaye man daal nun ñu nuy jànge faatixa mel leen xaw naa wuteeg yéen ni ngeen koy jànge mu laa nun nu nuy jànge faatixa nga dafa nun de nii ma ndax noo juumam déet mu laa ah, man nu ma koy jànge ah man damay na ko juum loolu ko bàyyee dana ah man naa am kon maa juum waaye nag boo ñëwee ko ah ni nga jànge faatixa baaxul góor gi yéen di jàng bu baabaa day gis boppam te day siisu su ko defee dafa am yoonu tasxiixul xata ku juum dafa am lu ñu koy jubbante rawatina bu dee mag rawatina bu dee kilifa xatta yéefar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan bu sa bind lettre ñoom ila azimi ruum lay wax kilifa ak ruum mënoon na ko wax ne ilaa kalbi ruum wala ila nangami ruum mais du ko wax ila azimi ruum ci kilifa ak ruum nga laay bind jëme ci moom kon wax ju rafet dafa am lu muy jariñ ala kulli xaal wallahu alam والليلة loolu la maanaam dafa am salas waaw ki am salasul bawl wala salasul reex mooy ki xam ne mënut gaanuwaayam wala ngelawal day gaar doomu aadama kooku day jàppal julli yëpp saa su xasee jàpp ba kàbbar moom lépp lu génnati ci moom it day continuer julli te julli gi day wér kooku loolu rek la ñuy wax ci moom alhamdulilah. am benn xaris. buy tere nit ñi di reetaan ñu jàngee. dafa am. xaalis buy. tere nit ñi di reetaan ñu jàngee. reetaan. waaw am na ay xadis yoo xam ne boo ko boolee moom dana firi teggini jàkk bokk na ci mooy yoronte bi nee na bu kenn tifleeti ci biir jàkk ku tafli ci biir jàkk kafaaratuhu mooy la koy saafara mooy nga suul ko kazalika mu kenn tifleeti jëmee li nga xam ne moo di xibla waaye reetaan nag moom dafa bokk ci sifaat la shuuriyya lu dul bu fekkee nag reetaanu moom sabotage la ak yu demee noonu loolu moom rafetul jàkk waaye ndax dafa am xadis bu ñëw bu ci bu ci ñëw di ko wax nag laa adri néew ma amul néewoon am na laa aalam laa wax mooy xaw ma ci dara <laughs> bisimilah jeex na sëñ bi ñun duñ ay mufti ñun ay ndongay daara yu jàng duñ ay mufti de waxtu yu jeex na waxtu wi nag yàlla taxaw waxtu wa jeex <laughs> waaw bisimilah tafa kii mu ne لخل waaw loolu loolu texte da koo tere yonte bi dafa tere nit ki di julli di gëmmu ak di muur kanam kanamam gémmiñam loolu dañ ko dañ koo tere maanaam di di julli di gëmmu yonn Cheikh Albani wax na ko tere nee na xusuul albarit la ko tuddee maanaam daal da ngay wane xusoo parce que loolu concentration la am na ñoo xam ne bu ñuy concentré dañuy gëmm di xalaat mais loolu laa yaxtaajuhu nit ki mën naa xool rek tey teewlu borom bi subhaanahu wa taala kon loolu moom na ko bàyyi kenn du julli di gëmm loolu yonent bi da tere sallallahu alayhi wa sallam nga xam di jóg duñ toog def seen lan nga leen mën a waaw julli moom mu ngi je mu ngi yeme ci asalaamualeykum ju njëkk ji sax nag loolu mooy almadhabu shafii ci ki nga xam ne dafa topp ci ginnaaw imaam dafa ne saa yi wax ne asalaamualeykum njëkk bu la neexee nga daal di jóg yow àggale sa julli kon julli moom mu ngi yem ci asalaamualeykum yonte bee ko taxliluha mooy salaamualeykum jooju la ca topp nag lépp nag nekkutul farata moom su ko neexee ah loolu de mooy li gën toog def baqiyatu saalihaatam ñaan def ay azkaaram waaye su fekkee dafa am aajo nag su sëlmale di jóg doxi soxlaam ala kulli xaal. di mun a dafa am benn tradition fii ci Sénégal nga xamante ne laata ñuy tàmbali julli dafa am ay wéy ci seen i wéy moo xam ne seen tarixa la bokk mu ne ndax islam may na ko gannaaw mu xam ne mu dal ci seen ginnaaw. ndax mën naa julli seen ginnaaw. waaw ala kulli xaal loolu moom du duggul ci julli maanaam lépp lu nekk ci lu jiitu allahu akbar wala mu nekk ci ginnaaw asalaamaaleykum loolu moom amul ak julli dara ñooñu daal bu fekkee la ñu nekk nekkul bidaatun mukaffira bidaa boo xam ne moom day génn lislaam moom bu boobaa mën nañoo jul ci ginnaaw te mu bàyyi leen nag sëñ loolee ñuy def wallahu alam di soxna mu ne moom day jiite julli ji la mu ne lan mooy taxawal sharia ndax jigéen ñi nga jiite julli wala waaw ala kulli xaal jiine jigéen day jiite julli ci xadis boo xam ne imaamul bayhaqi yu moo ko génne mu ne yaa aïcha radiallahu anha daana jiite ay jigéen di noddu di iqaam waaye day taxaw ci wasatu saf maanaam du leen jiitu bu sàppe si nekkee di day taxaw ci li di digg bi jigéen mën naa jiite ay moroomi jigéenam nag lay jiite ay moroomi jigéenam lay jiite day jiite ci xadisu nu mu ñëwati ndaw soosu nga xam ne yonent bi salaasam da ko wutaloon am noddukat muy jiite waa kër bi loolu xadis bu wér la ala kulli waaye nag buy jiite ay jigéen ñi moom ci digg bi lay taxaw taxaw seen kanam. day jigéen day yàlla seen julli day yàlla bu dee mais bu dee noddu ndànk lay wax bu dee ay jigéen rek ñoo ko nekk julli jigéen dañ koy yàlla. kii mu ne am na ñi nga xamante ne buñ tuuree ndax ba pare dafa benn liquide bu weex bu génn ci seen loolu day génn yenn saa yi nekkee ci julli bi mu ne ndax seen julli bi baax na wala waaw loolu góor la wala jigéen la waaw loolu wadi yu la ah, ah, hmm? ay nit waaw xam nga bu fekkente ni góor la àtte la bu dee jigéen la parce que jigéen mën nañu am ay perte blanche léeg-léeg tamit ñu am ay perturbation ci seen ni li génn ci ñoom loolu beneen xaq xukm la am mais bu fekkee ne xukmul la mooy ndox moomu di génn ci ginnaaw bu jigéen bu góor wala jigéen tuuree ndox ba noppi loolu ak ferloo la laaj dafa am ñoo xam ne temps bi ñu war a jël pour lañ dul jël dañuy tuur ndox rek bala ñoo ferlu dem daal di julli su ko defee maanaam mu tàmbali di génnaat xam ngeen loolu xadis bi ci ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa bi mu rombee ñaari قبره من إنهما لا يعذبان فما يعذبان في كبير بل في كبير mu ne ñaar ñii ñu ngi leen di mbugal te mbugal lañu leen woon ci lu rëy lu def mu ne waaye nag bàkkaar bu rëy la mu ne kenn ki ñu ngi koy doon mbugale parce que daawul ferlu mooy bu tuuree ndox du fa toog ba lépp jeex ka ca des da daan jaxase ay nit moo tax yaakaar naa ne bu fekkee nit ki amul feebar su amee feebar da bu àtte bi àtte salasul bawlu lay doon bi ñu wax léegi waaye bu fekkee ne amul feebar moom dafa war a jël temps ba ferlu ba set daal di wisu doog a dem julli ji wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك منهج السلف والدعوه اليه mooy taqoo yoonu mag ñu baax ñi ñu salafu saalax ak woote ci seen yoon ahlu sunna wal jamaa salafu saalax te alquran ak sunna tegu ci kaw suuf kenn ku defa mu nekk rek nekk ci soldaaru suñu borom subhanahu wa taala mooy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ijma'u sahaba te wote jëme ci keur aduna fi xejul ci keur abadan wote jëme ci sant am nañu amul sant wote jëme ci rew munul gide ñep wote jëme ci qabila mana aw xet amna ñeneen ñu xamul na sax xet bobu amna kon yoyu yep xat na